Assalamualaikum mbokk yi euh, ki moy garab bu am am solo ki lañuy wax mbeur bëf garab gi mom la Serigne Touba don tuddee mbeur bu boof garab gu baxa baxa baxa baxa bax ci doomu adama mbeur beuf comme motax ñu jël ko di jaay amerique ki moy mbeur beuf gis nga li ñu am ki ni garab yi limi muy ci doomu adama buñ ko xamone duñ ko bàyyi muy walangaan fi ni ki Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba wax na ko la tuddee mbeur bu boof ki mom lañ tuddee mbeur bu boof moy mbërbëf ñu ñukay wax mbërbëf ki moy mbërbëf garab bu baax a baax baax ci doomu adama garab bo xamni ne sa yaram buy xasan garab bo xamni ne dalay dimbali ci ñen yi nga xamni seen ndoxu city jorul jarul euh, tarul taru yoy noonu lu am am am solo mona nek di garab bu am am solo gis ngeen li ñuy wax ñun gàncaxu Afrique li ñu am tan fi ni doomu sénégalais duñ ko ñew jëfëndiko garab bu am am am solo li lu muy def ci doomu adama kenn xamuko kii mooy mbër bëf mbër bu bëf mu ngi nii moom la sëñ Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba wax mbër bëf mbër bu bëf ngo salaamaaleykum wa rahmatullah